alhamdulilah rabbil alamin asalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi am mbégte bu rëy rëy rëy ci teewaat fii jàkkaarloo jëm yi ñu jàkkaarloo. waaye mën sànni ay kàddu waxat mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais bi yëpp. ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne. seen bakkan rot na ci xeex bi nga xam ne moom lañu sumb ñun ñëpp te jubluwuñu si lu dul luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba ma faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt du ma fëlbu du ma boroom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ay shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci li tey rek ñu ngi yokk ñaan yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yàlla defal leen ci këru barsax yu yaatu yi di masaw ñi ci téléphone seulement. di nuyu bi wax na ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gars yi waaye nañu nañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye na wax ji mën naa bañ gudd parce que nous avons une élection à gagner que chaque compte moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñoo ñëw moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañ jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la. di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy naw la nañu xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam yi mooy li jiitu bi lu bëri xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ci teguñu ci yoon conseil constitutionnel nee sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am na ra transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance bi pour nga génne ko il faut nga appliquer l' article quarante et un du mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko radier te loolu respecté te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur li ci nekk yëpp xam nañ ko. donc soo amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen leneen lu ci laxasu yenn saay ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si ne conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption la ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéey jarul jaajëf waaye comme tàmbaloon nañu def safaan wa tamit nañu mooy di gaawantu di jiital émotion li war a demander tey conseil constitutionnel te di ko demander président Macky Sall ndax il encore rendre service à ce pays ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état bi yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek a ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xeebuñu kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon ni mun nañu def moins de 60 pour cent incha allah waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fegal na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur ne ñëpp jënd seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg def te mu jig ma mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko ko mën voter ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yenn fa ba ngoon ku ñëw bëgg a def naka sa noonu ngeen digaale ko moom ba ñu dépouiller ba signer PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seeni i lool nañ ko daan defee nañ ko def nu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñu war a organiser élection bi moo tax may président ma Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam lu yomb foofu mu xam ko. moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pays pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ci gaje ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi su amee waroon contesté man lii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy jàll may ñu président Cheikh Tidiane Gueye jàll kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci ñu ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te it may dalal xelu ñëpp ni fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu. kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am walla dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattuwoon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon te mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti bi nga xam ne à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppiku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fatou jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu xuddee bi ndax xam ngeen xuddee bi jamono jii màkka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina metti na woon xeer yi xare yi am yépp ci Madina la xamee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee moom fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les ci benn gox bu ñuy wax Xudaybiya yi takk arme ne su ngeen duggee ñu faagaagal mu nangu signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans bi mu defaru ci defar ci armée defar ci société bi ba keroog bi mu mi ngi woon ci jiite armée bu mat dix mille personnes te guerre amul mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii da doon guerre mu des nag élection ñaar dese étape yooyu lañ toll léeg-léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y aura dafa am loolu xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp néew nag ni impunité totale dina am waaye ci defoon na ma lii faw ma fay du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu yu daw ci mbedd mi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñoom ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fay mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mës a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laaj bañ ma ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw di fa ngeen bokk ma ne sama bokk élection mënul justifier report élection sama bokk élection mënul justifier report élection gëw mu ni Sénégal ba mu daj am na ku mu gën a mérité nekk candidat man waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam ku ko xamul rek da ngay sonn bont bi président xam nga la wax madame yéen ñu dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko de kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu la déposé recours mooy rabanale bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d' enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel. bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy nii. ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa dama bëgg nga wootee anciens amis du PDS. ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus tard mu wax mu man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax. ba keroog bi ma taaree tere dégg ñu ne doyen Habib dafa bëgg a déposer recours ci laa ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëggu mu ñu jaar foofu peut-être ñële mën nañ ne amuñu qualité à agir mais yow candidat la boo déposer ñu ne tu qualité à kon bul déposer dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñi doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen. ne leen seen kilifa bu démissionné mukk ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ju bëri na Sénégal nag moo di demee wax ji bëri na da ngay gis ku la xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nag boo ko wóoroo da def ni Aboubacar defoon biñ ko nee sa waa ji nee dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé duti moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg nit booy wóolu tant que yaa ngi koy gis ñàkk koo gis mun a jaaral nii nga ne non non non kooku dafay juum li te ñu jaar ba egg si li wax nii am na écart bu am bu diggante et c'est tout normal mooy Pastef dañ koo song pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñu gis woon dul xeex ak défendre bu ñu ko dewoon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre de décisions et je les ai prises seul parce que mënu woon jokkoo kenn bu ma ci ci benn rek. projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident sant yàlla te jumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu lu bëri si ñun lu mu mën a def ba delloo si li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo si ñun suñu parti politique ñi doon wax ex passif ex passif léegi nañ ne passif donc dina war a dem tey delloo si wuñu suñuy éligibilité sama bos man am na ñu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat yàlla ne samay biir noppi naa ci bu waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent dans daan wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui vous dinañu gagné waaw par excellence suñu gagné xam ngeen ni ku fi jëkk toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi mu yeggale ko kon maag Basirou mii dix ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bi soobee yàlla peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision yi ñëw gis nañu maam sama gaddim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés de woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prox ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey nañ ko def moo tax nit boo àndeek moom léeg-léeg koy wóolu doylu ko buy def xamoo teeyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañuy yow wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def noonu yëpp nit ñi ñibbi seen kër ah ñu dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg mais suñu defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpellé leen ministre la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen dig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul maa ba jàll. moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloo Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position ci s'est changé dañu ne woon kenn du teg. pistolet suñu bopp di ñu jaloog loo boobu jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw naka la ñuy demee jamono parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax nii te li ma wax saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog trois heures de temps quatre heures de temps je lui fais un compte amul lenn lu ko mës def te waxuma ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee di des léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw fil fil bu ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegsi ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi yi élection bii dañ koy gagné incha bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futti ko ëllëg ñu nga bëgg a yeewu ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye da ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné lañu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee. doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu nii mer naa gedd naa di tax ñëw di sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk nit yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on de combat Macky Sall keroog bi mu ne man doot nekkatuma candidat dañu pareeg moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Amadou Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xam leen Amadou Sénégal yi question bi ñu war a rek mooy simple fonctionnaire nu mu mun a alal gi yépp loolu rek jar na bañ a ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu ne amuñu dara wala am nañ tuuti. waaw fan la milliard amul Baye jógee est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu. kon loolu rek doy na ñu ne kii man warul mën a nekk président réew. vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégal déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def tout sa toute sa classe du Sénégalais rek gënuma koo nekk Sénégalais. tey ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ay panafricain ay sénégalais ngi dund feneen ñenn ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxom set na est bëgg na réew mi. est am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaari yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor na meñam wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaane Amadou Ba mënuñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul ma ne ko tegal ci suuf. jiite nag direction générale des impôts ma yor syndicat. yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bi ko ay milliards mu laal ko ku ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow. te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a tubaab yi kooku ko jox réew mi. balaa may dee ne compétence compétence la expérience expérience la ndax ndaw alal réew kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga xam dem ci même rangeen bi rek dañuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew bi mu ngi en danger dañ ñoo rax wax ana ñan ñoo leen rax ñun ñu newoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu sànni ñu ci biti ak terroriste ñu ko génne nii ana ñan ñoo kii gëmul tarixa kii gëmul wax waxatu ci yooyu ñu man tey moom la ñu jël pour koo ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toog yi ñuy wax ay waxu tampale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fait que ñu wax nañu def li nañu def nii mais le fait que ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord ñu Sénégalais yi jóg sénégal yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñu dafa am ne seen gannaaw ñu leen financé ay terrorisme ak yooyu dañu respecté Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens mais waruñu leen dugal sax ci yéen il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne. parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñu ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye fi mu jaar ba egsi fii toute sa trajectoire loolu lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président de moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se élection bi incha allah dañ koy gagné di dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est ba daanee nag damay bañ a def sama candidat bi damaa bëri wax waaye dama leen nangu version français bi sax moo ko def damay bàyyi président wax su may daane leen mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kenn ku ne ci dina am ay seytaane muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay air primaire lañu dong la nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn ko dénkaane nanga bi ñi di ñëw di wax ba defee soo wetee ne a'uuzu billaahi mina shaytaani parce que bu ko moy rek nga gis sa bopp li ma def man mënoon na tombe ci Birame Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci Maimouna Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye ci keneen ak keneen doyen Habib Sy mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu mu jot ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission à son âge de mission parce que dafa sa ma seeti ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et mu ne ma bu soobee yàlla noonu laa koy defee te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moom mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko moom c'est un homme de mission ma seedeel ko ko noonee naa bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma seetaanee bàyyi bi ak tagal bi dafa mu dem dañ ngeen di fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne nu Diomaye Faye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay da buuj nii mënoon na nekk candidat grâce su ko neexoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombé na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa ne ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te xam naa ne tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb ñoo ne woon ba ndogoonoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di génn ma ne ko saa yi demal defari sa bagage da nga defar sa sikkim bi <laughs> alors bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñuy waxtaan ci li nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na mu wax ma am solo mu ne ma président wallaahi politique su waroon sama diggante ak yow ma arrêté que damaa yëkkati doom tuddee la ko damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yow mi nit ma la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ma bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax bi man nag. Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom kon nag tiital na waaye ma ma bëgg a seede ni gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama reetaan bu guddi gii li mu nekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii Ibrahima bu ñu jëlee affaire bi damay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen andi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetlu ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président. mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi loolu muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wi nii tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek li muy teel visite mu ne ma président man dama am kersa ci nit du ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mun a dugg sama nopp bi ba ti sama xel gisagu ko loolu ci mbindam la bi may daaneele nag gannaaw bu ma dénkaatee Sénégalais yi Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak Sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ci bëgg a wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dina ci doog a daaneel ba ca njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi. dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la am boo gisee xalaat yooyu am mooy président présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi ne nii sonn na bu mu sonn yow ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mun a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président. ndax boo jëlee réew mu mel nii France ba 2007 modèle bi dañu amoon à partir de 2007 dañu def seen réforme mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que ñun dañu resté ci c'est le déterminisme du gouvernement qui coordonne et exécute moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre bi mooy dem au charbon su paree bu yóbbu mu tàgg bagage kon ñaar mun na am soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que loo doo boole ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice-président bi daanaka il est là la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer conseil de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré